non futur président de la République. dernière question bu ma la bëggoon laaj si affaire comme que euh, enseignant nga à l'université démb euh, recteur bi dañ koy invité à la rajo mu ne euh, avec distanciel bi mooy que les cours à distance 70 pour cent am nañ taux de réussite vous pensez que c'est ça c'est juste. moi je pense que c'est c'est archi loolu gis nga université li fa xew waxuñu ko sénégalais yi man je suis enseignant à l'université j'ai pratiqué les cours à distance gis na échec bi c'est un échec total man j'ai des j'ai des milliers d'étudiants à gérer déjà boo bu ñu connecté woo ci plateforme bi plateforme bi day grippé munoo def cours en ligne da ngay déposer ay ressources ñu ñëw télécharger ko étudiants yi dañu leen naan awma connexion pour télécharger ay cours. mais c'est l'enseignant qui parle ou man fi mu nekk nee naa la sànq dama am activité j'ai une réunion syndicale tout de suite à l'université mm-hmm, mm-hmm. on a des problèmes à régler avec cette université avec les euh, les les autorités de cette université parce qu'ils ne disent pas la vérité aux Sénégalais la vérité mooy que étudiants yi jànguñu pour à distance yi ñuy wax c'est pas ça ne correspond pas à la réalité ñu ngi sacrifier des générations de Sénégalais te loolu ils vont ils vont rendre compte de cela devant